nena la ba ngay xalé ba ngay xalé def nga lila neex ba ngay goné def nga lula neex ba tax ma rek nena la jamono da fay wess bu baakha baax batay nena la man sama musique dem rek lay ñew di len ko bëggé bu baakha baax ki nga xam ci nak mom moy suñu xarit suñu doomu nday di papa mamadou sen papa amadou sen ñu ngi lay bëggé bu baakha baax ba tax nak nena la ñun bu fekkene da ngay doon suñu xarit ba paré am yo xam ci da nga ñukoy bëgg wax pour and ci ñun pour bëggé bu baakha baax dina la wax ne lepp lu mu ci doon nena la da nga ñew ñu japp ci bam baakha baax ba tax ma rek papa sen nena di jël naa heure ma ni ko oui ma ni ma j'ai un boo xam ci dîner la boo xam ci dama koy def ak samay xarit samay am di jàmm ma ni ko dîner boobu lan la mu ni un work ma ni ko ah mu ni ma waaw ma ni ko mais booy loolu rëy na de diis na trop mu ni ma ba tax na nee na da ci ànd ak ay xaritam ak ay doomu ndeyam ci dîner boobu nga xam ci moom mooy un dîner d'after work fan la koy defee fi nga xam ci nag moom mooy euh, dakaaru Ndiaye Jar Diop kañ la koy def le 6 avril fan lay ame foofu noonu ci restaurant bu ñuy wax amiral bu nekk foofu noonu ci Dakar foofu la koy defee incha allah ak ay xaritam ñeena ñan la ñan la koy àndal ki nga xam ci ne moom mooy le président moom mooy kaan Racine lay béggee bu baax a baax di jëpab seen nee na ñu ngi lay béggee encore bu baax a moom mooy Cheikh Tidiane Touré l'infatigable ñu ngi koy béggee bu baax a baax war ci ànd ak Pape Sène doomu ki nga xam ci nag moom mooy Birama di le major Gaye ñu ngi koy béggee encore une fois baax a baax war na faa mën taxawee Galas Diouf le perturbateur numéro 2 puisque Pape Sène il est le perturbateur numéro 1 kon Galas ñoo lay bëgg baax a baax yow mi nga xam ci doomu ndey Pape nga kol kër si ñàpp nga yéen ñi ne fa a teew ki nga xam ci nag moom mooy parrain ba muy kaan sama Thomas muy kaan Badara wadd ah xaw ma ndax badara bii la ma ndax badara boobu la en tout ci mënti doon war naa a neex lool ki nga xam ci nag moom mooy euh, Salibal di señora bi señora Salibal Pape nee na fas yéene na gis sa taxawaay bu baax a baax foofu Ibrahima Diop na Fala Salima ak Cheikh si Pape nee na bëgg na leen fa gis yéen waa diaspora bi yépp ki nga xam ci nag moom mooy Maymouna Ndiaye ak Sall. Macky Sall way Macky Sall ba ak nena sek pap nena bëgg na leen fa gis yeen ñepp bu baaxa baax ak wa TLF1 yépp pap nena dafa bëgg bu ngeen ñëwé ngeen def seen santé yu baax ngeen def ko ku nekk ci yeen rek noir bam saf sap ak blanc bu ko défé sar bi def noir et blanc parce que dañu ñu wara and ak aduna di dox parce que suñu jamono lañu nekk xalé rek lañu dañu wara bëggé bu baaxa baax ba tax na rek damay ñëw and ak yeen fi ni nga xam ci la xalé de la Bamba bal bopp nee naa la Pape Sène yow da ngaa baax.